asalaamaaleykum euh, waa Cité Marine maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar ñëpp man la Ardo responsable communication bu ànd Suxali Cité Marine donc tey dañoo ñëw fii ci moniment bi euh, di def cérémonie d'ouverture bi ak le président euh, de ànd Suxali Cité Marine mu ngi ni toog mu ngi ni taxaw donc ñi nekk suñu ginnaaw mooy ñi nga xam ne ñoo bokk nekk ci membre ci ànd Suxali Cité Marine tey nag mu nekk benn fête bu mag bu ñuy def jagleel ko suñuy doom ak suñuy jarbaat Euh, mu nekk projet bu am solo bu nga xam ne chaque fin d'année dañ koy def bi mu nekk une première ñu war ko def mu rëy ñu am ci réussite totale euh, ànd si ak euh, initiative bu président bi mu ngi nii am mon côté donc président ñu ngi lay nuyu di la sant. waaw maa leen di nuyu maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax non tey moom dama am vraiment fierté donc dañu kontaan trop trop trop si lii nga xam ne moom la ñu def muy benn programme boo xam ni vraiment yàgg na di def ay programme mais programme bi bokkul ak programme yi ñu doon def parce que cible yi bokkuñu parce que ñun bu ñu li ñu tax a jóg c' est l' avenir de nos enfants li ñu def yëpp dootul pour ñun donc xale yi ñoo tax ñuy def te li ñu def yëpp c' est dañ ko ay projection la pour le futur donc bu ñuy liggéey di def si pour xale yi defe naa loolu amul lu ko gën a kawe moo tax tey jii vraiment je suis très fier pour mouvement bi li euh, manifestation bi nga xam moom la ñu def jagleel ko xale yi. Euh, donc ñun euh, au départ on était au départ dañu dañu jëloon euh, dañu jëloon engagement pour defar pour quelques xale ay tranche d'âge mais bi ñu demee ba si biir dañu gis ne mënuñu def pour benn xale bàyyi benn xale donc suñu cible de donc c'est toute la cité et les environs donc xale yi cité marine yëpp dañu def recensement dans toutes les maisons la tranche d'âge de de de 1 à 11 ans on a donné des cadeaux à tous les enfants de la cité y compris les cités yi nga xam ne ñoo nekk à côté de nous muy cité Gazelle ak cité euh, Crédit Foncier ak un peu Castor et un peu Asecna donc euh, loolu mooy sunu objectif pour les cadeaux la distribution se fera par euh, par secteur donc on a prévu de de de de faire des chefs de secteur donc on va les déployer dañuy déployer les les cadeaux là dans chaque secteur après on va faire une caravane pour vraiment faciliter les choses comme on est en en période de confinement et donc il est interdit euh, il y a donc on a prévu de, de faire euh, des groupes donc euh, on va disperser les, les, les, cadeaux si chaque euh, chef de secteur comme ça on va faire des, des, euh, la distribution dans chaque secteur on voilà donc dañuy sant yàlla bu baax a baax parce que on a dañu amoon objectif bu def ko donc yaakaaroon ne yaakaaroon ne xëy Euh, li ñuy li ñuy soxla si euh, si moyen peut-être que ñun duñ ko am mais bi ñu demee ba si biir on s'est rendu compte que li ñu def à quatre-vingt-quinze pour cent donc suñu ay fonds propres la donc distribution euh, moyen yëpp fii la jóge ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans la diaspora donc ñoom dañuy dañuy dañu noppi di leen sant parce que chaque fois que on a un programme ñoom ñoo ñuy jàppale bu baax a baax a baax donc dañuy sant yàlla bu baax a baax mais li ngeen gis fii yëpp financement bi c'est sunu financement bopp la aswa association bi góor jigéen ku nekk da nga def ay sacrifice jël sa ay moyen ñëw indi ay cadeau donc cadeau yi ngi yëpp surtout cadeau la yoo xam ni waa population Sénégal ñoo ko génne ak ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi soutenir ñu voilà pour la plupart. maintenant en tant que président est-ce que mën nañu am ban idée pour ngeen am euh, je crois que dañuy démarrer de nouvelles bases parce que ñun actuellement nii. dañoo dañoo commencer doon def ay manifestation yu mag te manifestation ñu def yëpp euh, au départ doo ñu si am euh, idée boobu mais bi ñu ba si biir on a que en fait euh, chaque fois que ñu def benn événement li ñu si sax dañuy am plus donc nag perspective bu deux mille vingt et un yi en deux mille vingt je crois que déjà ñu ngi commencé di restructurer wu en janvier on va faire une réunion d'évaluation pour xool suñu ay perspectives. perspective yi donc dinañ ko fixer donc xam vraiment à chaque période ban euh, événement majeur la ñu war a mun a organiser donc euh, si dynamique boobu la ñu nekk on a une série de de de à prévoir donc euh, en 2021 donc dès janvier dinañ def benn réunion ñu évaluer xool rek lan la ñu war a def à chaque période bu jot parce que à chaque moment am na benn manifestation boo xam ni moom lañ siy prévoir voilà. Euh, waaw donc euh, dégguma la bu baax. en tant que président mën nga profité non loolu la mujjee parce que waa Cité Marine il faut que ñu ñu ñaanal leen waaw donc euh, ñëpp nag dañu commencé par sunu papa yeeg sunu yaay yi nga xam ñoom ñoo fi des ñu ñaanal leen ñu gudd fan. waaw parce que lii yëpp ñoom ñoo tax ñu koy kii moo tax dañu profité aussi nouvel an bi pour ñaanal sunu waajur yi d' abord. suñu papa yeeg si yaay yi fi des ñu ñaanal leen vraiment ñu gudd fan yàlla sàmm leen bàyyi leen fi lu yàgg-yàgg population jeunesse bi fi nekk ñu ñaanal leen vraiment euh, doomu Cité Marine ñu koy tudd fu nekk waaw loolu lañ bëgg ñun loolu mooy suñu créneau dañu bëgg vraiment Cité Marine ay doomam ñu leen di dégg un peu partout dans le Sénégal ñiy jiite ji dëkk bi ëllëg ñuy ay doomu Cité Marine voilà loolu lañ bëgg moo tax action yi ñuy def y a des de développement dañuy yoo xam ni si xale yi lañ koy euh, commencé donc euh, si éducation bi ak yooyu yëpp ba euh, nga xam ni doomu Cité Marine moom modèle lay nekk dans dans le Sénégal voilà. voilà Covid bi gis ngeen ne suñu dernière manifestation Covid bi lañ ko defal parce que on a distribué dans toutes les maisons des kits kits yoo xam ni c'était pour parer au Covid donc euh, on a lancé le message et c'est bien entendu donc ñuy sant yàlla boobu ba léegi bi ñuy wax Covid ba léegi defe naa ñun amaguñu benn cas te macha allah loolu la ñuy ñaan mu continuer. donc nag ñuy waxaat population bi rek ñu gën a fagaru di gën di protéger wu di gën a euh, gàttal seen tànk di bañ a def loo xam ne dañ ko tere donc loolu mooy message ci Covid bi di ñaan yàlla vraiment que ñu mujj si loolu. Sénégal mucc ci Afrique mucc ci. bu takku kër gu ne presque dugal nañ fa vingt masques dugal fa ay détergent dugal fa lu ne tey aussi ñu indi projet bi nga xam ni mooy euh, projet bu am solo mooy suñu doom yi nga xam ni dañ leen war a bégal euh, yàlla dimbali ñu ba lépp mu réussir euh, ci nag ay jigéen yu jàmbaar yoo xam ne ñu ngi nii samay wet ñeneen ñu ñu ngi nii si ginnaaw ñoom ñoo si jàpp liggéey bi yëpp presque ñoom ñoo ko def euh, mu am ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk samay wet ñaari jigéen yu nekk samay wet muy présidente bi présidente cellule féminine bi moo nekk nii muy si Cissokho kii soxna si mooy Bira moom presque mun nañ ni à 100 pour cent ñoom ñoo organiser manifestation bii ñuy def tey muy distribution cadeau yi ma njëkkee ci président bi euh, ñu am ay questions yu ndaw yu ñu ko laaj président ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. waaw ñu ngi rafetlu bu baax taxaw euh, journée tey bi mhm. tey journée bi tey euh, noo ko gisee. tey moom journée de journée contentement rek lañ ci am. dëgg ñoo ngi sant yàlla. di jullit si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin et puis di sant yàlla bi ñu amee taxaw fii parce que mooy li Morane doon wax sànq rek suñu contentement sax mënuñu ko mesurer parce que ñun ñi cité Marine la ñu juddoo cité bi suñu papa yi nekkoon Marine française ñoom ñoo créé woon une coopérative d'habitat bi ñu créé une coopérative d'habitat ñoom ñoo ko tabaxal seen bopp parce que c'était des ouvriers de la marine ñoom ñoo tabaxal seen bopp ñoo def tout ce qui est travaux mooy la construction installation électrique bi tout ce qui est menuiserie tout e qui est plomberie paa yi ñoom ñoo ko defal seen bopp ba tey ji yàlla dogal na genn wàll yëpp jóge nañ fi donc bu ñu taxawee tey ji ñun ñi nga xamante ne seen i doom lañu ñu dem ba am fi ay doom ba tey ji ñu toog ñu ne la mag ñi doon def ñun tam nañ fa jéem teg suñuy tànk parce que suñu papa yeeg suñu yaay yi dañu àndoon nañ fi taxawee nii noonu lañ suñu papa daan yóbbu marine française ñuy dem di jëli ay kado xale yi nag fekke amuñu chance bu fekkee loolu ñun ñoo amoon chance boobu léegi nag ñu ne loolu dañ ciy delluwaat encore ñu c'est l'occasion aussi ñu féliciter suñu président parce que moom moo créé association ànd Suxali Cité Marine te bañ ko créé ba léegi macha allah ñëpp joxante nañu loxo 185 yi fi nekk ñëpp bokk nañ association bi ñëpp ñu ngi joxante loxo donc tey jii c'est un immense plaisir pour ñun daf ñu delloo ñun suñu bopp sax suñu temps wu parce que suñuy wayjur ni ngi lañ ko daan defal ak ñun donc ñun tam tey ji bu ñu taxee fii di ko defal suñu doom émotion bu forte la ñaanoon fekk leen fi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla bu baax fa nekk yàlla na leen na fi ñu nekk. kii mooy présidente bi cellule féminine bu ànd soxal si Tamarin. waaw ñu ñëw tuuti rek ci soxna si nga xam ne mooy Bira moom moo organisé day faat moom moo organisé day faat Diop moom moo organisé lii ñu nekk fii tey di ko organisé. ko coordinatrice moom ak Jaynaba Jaynaba nekk si moom mooy présidente cellule bi soxna si. waaw salaamaaleykum. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen gërëm. di sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin parce que lu mel nii dafa yombul di gërëm di ci jiital suñu président Morane di ci teg suñu président pharmacie Sakho lu féminin di gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que lii tout début est mais ñoom dañ ne ma woon euh, tout début est difficile mais bii day yomb biñ may sant liggéey bii nag tiitoon naa ragaloon naa mais nag ragaluma parce que dafa am ay ñu jàmbaare ñu nekkoon sama gannaaw ñu jàmbaare ñu nekkoon sama gannaaw muy suñu président Morane ak waa jigéen ñi fi taxaw yëpp ma di ci gërëm kenn koo xam ne dama koy sympathie euh, yëkkati ko muy sama rakk Dieynaba aidé na ma de gauche à droite n'importe quelle heure Dieynaba maa ngi moom ak sundooy di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne lii mbégte la boo xam ne Fatmata li ma bëggoon wax da koo wax ñun kado la ñu xam ak mbégal njaboot loolu moo ñu indi suñu baay yi doon bégal ñu bëgg a bégal suñuy doom suñuy suñuy doomi càmmin suñuy rakk suñuy sët loolu moo ñu fi taxawal di ñaan yàlla nag bu déwénee ñu ñu def ko daal ci commune bi yëpp du yam fii ci commune bi parce que suñu président moom il est ambitieux te lu baax rek la bëgg te taxawaayam mooy que ne moom lu muy def ñëpp a koy bokk kon di gërëm di sant ñëpp di kontaan ci ñëpp jërëjëf. Ousmane Coly kii mooy suñu papa Ousmane Coly mooy chef de quartier wu Cité Marine asalaamaaleykum papa. maaleykum salaam. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar euh, di kontaan trop ci fekkee fekkee bés bi nga fekkee muy xale yi nga xam ne dañ leen di jagleel tey cadeau euh, ñu ciy laaj sa xalaat. oui je suis vraiment, nous sommes, je parle donc au nom de mes collègues de service qui ont construit donc euh, cette cité. Malheureusement, une bonne partie de cette famille est partie. Compte tenu de leur âge, ils, sont, ils ont été rappelés à Dieu. Mais sincèrement, je suis presque très certain maintenant que nous aurons des remplacements, des remplacements sûrs, des remplaçants sûrs qui vont continuer l'œuvre de solidarité de Castor, de la marine, l'œuvre sera donc maintenue et je suis euh, content. Je le disais à Moran, le président de Socoli Cité Marine, que sincèrement, Nous sommes très, très, très satisfaits de l'œuvre que vous êtes en de <coughs> mener pour euh, le bien-être de la cité marine. Voilà, c'est formidable. C'est vraiment... <coughs> Parce que j'ai des problèmes. <coughs> C'est formidable et c'est vraiment... à, à vous encourager de continuer cette œuvre pour le bien-être de la cité marine.